jërëjëf yéen ñi nga xam ne ñu siiw fii si Dakar animaux point com tey dañu nekk euh, plage Bessiao plage Bessiao na Sénégal ñu bëree bëri xam nañ ko euh, fan yi paas ñu ngi woon ci xar yeeg nag yi comme je vous comme souvent mais tey dañu am benn gan bu spécial benn gan bu garaaw garaaw garaaw garaaw la ñu am gan bi dafay làkk olof gan bi dafa dégg olof César tey suñu star mi ngi nii César ñi ànd si ak gën gën gën léegi nu may def damay def nu muy demee <laughs> ah c'est sûr ok gars yi kaay ma xam ne affaire xaj du mbokk nag <laughs> bu leen ko wóolu de. <laughs> benn problème oui nice am jaam yaa si kaw mais nga koy nuyu wala da nga koy jox loxo wala. Ah, waaw war na mën nekk de. César nuyu ko voilà. César ko. voilà c'est bien jaajëf jaajëf. gis ngeen kon nag gars yi gars yi di leen nuyoo sama mbokk Baye Fall di leen nuyoo. waaw mais noonu la ça va ngeen def. bàyyi yéen a ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah. tey ñu la fekk ci ci en pleine activité. Euh, nga dajale fii ñaari berger allemand yi ay berger allemand la. waaw ay berger allemand la mâle ak femelle. daanaka yaay ak doom la sax. voilà. Euh, ak kan ak pitbull. waaw euh, kii pitbull la moom mi ngi tudd César gars yi di ko tooñee le roi César. voilà sama copain. d'accord wul. <laughs> waaw man maa ngi tudd Matar. gars yi di ma dàqantalee gënal mais xaj yi ñoo tax gars yi léegi di ma woowee gën dog waaw maa ngi dëkk Parcelles Assainies unité 24 nekk maître chien et dresseur euh, maanaam nekk si xaj yi daal di liggéey di def suñu yéene ba nga xam ni ñëpp daal dinañu gis nu ñu bëgg liggéey lan la ak xaj ban njëriñ la am si sénégalais yi ak société bi. voilà boo leen YouTube ngeen tàppee gën Ndokh di ngeen am chaîne YouTube bu gën mook César da ngay gis la César César le le pitbull sénégalais boo tapé da ngay automatiquement moom dafay ñëw César moom siiw na quoi gën moo siiwagul <laughs> mais César moom siiw na quoi gën euh, est-ce que mën nga wax un peu euh, amour amour bi nga am ci ci ci xaj yi lan la. waaw waaw defe naa loolu bu ma koy wax sax duma si mën a wax lépp ndax dafa yaatu yaatu ba nga xam ni mënu la wax en fait kañ laa commencé yar xaj ndax yàgg na. sama amour si élevage le djitu ndax dama djudu et tout ça fait sama papa di def élevage euh, xétu mala bu nek mu yor ko mais nak ñemewul won xaj <laughs> yalla nak moma moma natou ci bena xaj yi may ma jéki jéki rek amone ben ben ben xaj bo xamné li taxone ma wut ko moy sama ginari, yi manam gaay dañ ko daan sacc nen des fois nenu braman jamono yoy et consort ma wut ben xaj ba ma xaj bi nek si diko yar par la suite dal ma ne daal xaj ku ko bëgg a yor si ay mala foog nga tàggat ko ba nga xam ne doo am problème ak maanaam selon fi nga nekk doo fa am problème daal noonu la ma amour bi duggee ainsi de suite ma commencé di foo si affaire yi ba def ko passion mu gi mu nekk liggéey. mais tey jii amoon na la njariñ bu bëree bari waa maa ngi siy sant yàlla alhamdulilah waa ndax xaj boole na maa ku nekk tax na ma xam ku nekk am naa si xaalis waaye xaalis bi nag bëriwul ndax Sénégal xamaguñu xaj. <laughs> waaw loolu lañ bëgg nag bëgg nañ gars yi à part d'aujourd'hui gars yi nañuy bàyyi xel xaj lo diaboliser rek ça devient diabolique quoi. c'est ça alors que xaj diaboligul xaj mala la boo xamante ni boo ko seetloo mala bu am ngor la mala bu rafet la mala bu baax a baax la gis ngeen pitbull bi ngeen di gis ni man ay 1 mois ci ginnaw mais naaw soo ma ne xaj ma à un mètre du ma ko du ma ko du ma ko kii te xaj nag ku mën a jëfe ndigal la <laughs> damay mañ tudd ñooñu sama gars yi di ma sànni xeer <laughs> naam bu ñu tëkkale mais xaj moom moom moom jëfe ko quoi moom. <laughs> waaw mais dëgg la mais li ngay wax noonu sax dëgg la maanaam xam nga lu dëggu jarul nëbb parce que tey dégg naa si mag mi ne ma Serigne Touba am na si bindam bu mu ne boo demee ba xool ab xaj ne ab xaj bee la yaa gën xaj bi rek xaj baa la gën donc kon yàlla tagg na tamit si alxuraan askaabul këx fi xaj ba tuddoon xitmiir mooy ñu nelawoon si si si ba ay junniy junniy at après ñu génn boobu xaj bi rek a nelawul woon kon du hasard yàlla boole nit ak xaj ndax lépp loo gis rek dafa am kaay dëgg la <laughs> tey tey César euh, bu ñu ko doon présenté. Hmm. Euh, kañ la juddu kañ ga nekk ak moom. waaw César euh, mu ngi judd la le 17 février 2019 moom yaayam laa yoroon. yaayam daam kenn ku ma ko joxoon muy mànga parce que maanaam doomam moo ko yoroon moo ko importé woon ba mu ñëwee. mànga man si mànga lutteur mànga deux. mànga lutteur di ko sant si lool di ko remercier doomam nag yàlla def mu génn àdduna amatul ku téye xaj yi mu ne ma ah yow sama fils nga kaay jël xaj nga géré yàlla noonu la defee César judd si ma sélectionné ko xool ko xam ni kii wax dëgg fa yàlla nekk na xaj bu rafet boo xam ne neex na ma daal sopp naa ko. te évidemment noonu la demee tax na ñëpp tamit sopp nañ ko ndax taaram geeg maanaam xam-xamam bi. ak ndigal dëgg la <laughs> jërëjëf. ndigal gi yow yaa ko ci def nag judduwaale ko quand waaw xam nga xaj du judduwaale dégg ndigal comme ndigal bii nii xaj mun na judduwaale intelligence innée mais maanaam xaj boo gis euh, ñu naan ko toogal muy toog c'est-à-dire dañ ko liggéey si loolu ba nga xam ne di ko toogloo muy mën a toog ndax loo gis. dafay am mooy li ma la wax rek tàmbalikaay xaj bi muus na parce que looloo tax yàlla boole kaak ñun mi ngi mel ni sa doom bu demee euh, bu juddoo si kër gi di nga ko jàngal di nga ko jox xam-xam mais dina am fu muy toll di nga ko yóbbu école te pourtant moom mi ngi jàng si biir kër gi donc kon lépp lu nekk si moom man maa ko def si moom donc léegi li ma def si moom moom la may delloowaat rek moo tax tey su ma ko nee toogal mu toog su ma ko nee tëddal mu tëdd jugal mu jug parce que maak moom dañoo am benn affinité boo xam ne dañ ko liggéey voilà mën nañu am démonstration bi parce que ba léegi xam naa am naa sama gars yoo xamante ni ñoom vieux waa ji dafa mën a weddi loo wax weddi ko quoi. <laughs> dafa mën a weddi. Ah, non dëgg weddi loo gisagul moom waaw am nga si droit waaye loo gis dootoo ko weddi. ñu bàyyi ñu nga def amul benn problème amul benn problème ok César yëpp good boy <laughs> gauche César toogal jugal toog. jugal taxaw dellu ginnaaw ñu def ak moom marché au pied sans laisse César gauche tànk ak tànk dellu ginnaaw gauche bul jug foofu César xaar ma César toogal tëddal César wàccel sa bopp si suuf wàcceel sa bopp si suuf jugal taxaw jugal taxaw bul jug foofu dellu ginnaaw César si digg bi ñu dem lii la ñuy liggéey mooy travail chien de guerre boo xoolee soldats yi lu si ëpp buñ jiitale seen xaj yi lu si ëpp si digg bi lay nekk donc moom voilà ñu dem ok César si digg bi wëral ñu dem hop tournel dellu ginnaaw toogal bul jug foofu bàyyil dama jël goodbye mais mais tey euh, gën euh, gën gën. waaw tey gars xam naa gars yi tey yéemu nañ quoi. Uh-huh. mais noo def ba. noo def ba parce que mala dafa dafa xëy na nit di nga ko wax mu dégg. nga dóor mu comprendre. wala nga xas mu comprendre mais tey xaj bi noo def ba yow soo ko waxee rek mu def automatiquement. waaw maanaam nekkul benn fan nag nekkul ñaari fan parce que xaj bi à son plus jeune nage si laa ko jël ne sama objectif lii la mooy dama koy tàggat su ma ko tàggatee bëgg naa mu dégg olof mais bëgg naa mu am intelligence boo xam ni. ñëpp dinañ xam ni maanaam pitbull xaj la ni xaj yëpp mais xaj yëpp tamit mën nañu mel ni moom. léegi nag ma commencé ko liggéey ba mu amee deux mois laa ko commencé liggéey parce que maanaam dama déggoon xam sama xam dafa bëriwul ma déggoon ñu ne xaj bu amee six mois lañ koy commencé liggéey or que man dama ne xaj bi bu amee deux mois mi luy comprendre rek neex naa liggéeyal. ma xool euh, à son plus jeune mu nekk xaj boo xam ne dafay comprendre yi ma bëggul yëpp du ko du ko du ko def ma nekkoon kii war naa ko mën a liggéey lii ndax saa su ma ko waxee mi ngi may dégg ma exploité loolu di liggéey moom dem naa ba à la fin dama doon liggéey ak moom 6 heures de temps chaque jour chaque jour damay am ak moom 6 heures de temps boo xam ne damay nekk ak moom dressage technique laay def ainsi de suite yooyu yëpp tey di si nekk di si nekk ba am lii donc nekkul benn fan nekkul ñaari fan liggéey la rek surtout base. manam xaj lepp lu koy liggéey mooy base bi mu xam marche pied assis debout couché pas bouger et pas toucher loolu mooy base u xaj li si des yëpp c'est des dressage technique mais est-ce que tey euh, lu si mel ni pitbull neex na neex na dressé parce que man souvent fi ma koy gis yëpp da ngay ñëw fekk gars yi teg ko ci teg ko ci tool yi takk ko xam nga xaj bi tout le temps boo duggee mi ngi mbaw mi ngi agressif mais gis nañ ne César bis jusque là defagul dara xaw ma nag parce que dama naa jusque laa nag <laughs> defagul dara a te ko neegul te du def dara sax incha allah waaw loolu noonu boo gisee gars di ko def parce que xam nga nit ku si nekk maanaam bët bi ngay xool sa moroomi doo euh, sa moroomi euh, nit ou sa moroomu mala moom ngay gis si moom bu dee da nga da nga da ngay dégg ñu naan la day matte day lekkee à chaque instant day def loolu yow loolu rek ngay gis su fekkee yow yow jéemoo dem ak manam xel bu bu sel xel bu rafet boko jele automatiquement ci tol bi nga koy def pour mu meuna meuna def li ngay deg te or ka xaj yeb ay xaj lañu comprendre nga léegi manam su fekke yow da nga bëgg am chien de garde wala dara du da ngay jënd pitbull lay dugal ci dé dédét dafa am xaj bu meuna nek chien de garde n'importe quel chien peut être chien de garde mais selon sélection bi parce que xaj yi bu ñu nekké meut da ngay ñëw fekk euh, xaj bi fay tayal xaj bi fay dafay sawar xaj bi day muus xaj bi day dof léegi nag solon yow li nga soxla foofu foofu nga koy mën a jëlee mais pas individuellement bëgg naa xaj bu may garder rek dem jëndi xaj mun nga ko jënd sax du la servir dara parce que du def li nga ko soxlaa voilà tey li gars yi faral di wax naan pitbull euh, bu demee ba gën a nekk mag xel bi day dem moo tax après dootul mën na dem ba dootul xàmmee sax maître am est-ce que loolu am na waaw man de du ma ne amul nag waaye mosuma kaa dund te yàgg naa xaj yi kii maa yoroon yaayam te moom mi mi ngi fi incha allah bëgg nañ yàlla bàyyi ñu fi ba si kanam kanam gars yi dinañu gis incha allah man nag mais mosuma ko gis quoi. est-ce que tey euh, nii nga nii nee nga ko nuyool mu nuyoo loolu c'est des yoo xam ne nii euh, xëy na yu kii la quoi sa à dire yu nooy la yoo xamante ni mu donc ce qui veut dire que pitbull mën na dund en famille est pitbull mën na dund ci appartement parce que gars yi fii Sénégal am na ñoo xam ne amuñu espace bu bëri est-ce na fa.

bu bu bu bu nekkee si biir kër nga wutal ko place bu muy yem mu bañ def désordre mais heure énergie bi nga xam da ko war dégager bu jotee da nga koy génn mu dégager énergie donc c'est le milieu qui détermine l'individu, individu voilà. Euh, tey est ce que moom wax nga ko léegi da yor ay ay yeneen yeneen yeneen jur ay xar ginaar et tout ça mais tey est ce que euh, des fois nga utiliser comme chien de garde. waaw moom déjà c'est un chien de garde. parce que xaj bi nga xam ne tàggat nañ ko agressif quoi je veux dire. après dinañ la wan sax après. nañ ko nañ ko ci teg. amul benn problème kon nañ la ko defal. léegi nag man sama problème mooy micro bi bon bu à à cinquante centimètres dootul jël son bi. dama xalaatuma jege à deux mètres wala trois mètres léegi nu ñuy def dama lay jox micro bi nga téye. waaw la neexee. ok. <laughs> Talla ñëwal joxal a dog bi <laughs> jox ko jox ko <laughs> Dieu le protège. Voilà. Kai. Ça le protège, waouh. Ok. Gauche. Gauche. Très bien. Régulez le tour. Voilà. Bon. lu ñuy bëgg a ni moy euh déclenchement mordant mordant lañuy bëgg a liggéey nii mooy c'est-à-dire manam xaj bi dañ koy jangal muy attaquer buy attaquer tamit manam fan la wara mat sisi cible am ba nga xamni ne du ko gaañ ndax xaj bu maté ci loss mën na la ray bu maté ci awra mën na la ray bu maté ci bir tamit mën na la ray donc il va falloir nga jangal ko fan la wara mat muy ci loxoy wala ci tanki ba nga xam ne bu mattee tamit boo ko nee bàyyil mu wara a bàyyi loolu la ñuy wax moment excitation au donc nañ dem si liggéey bi César c'est bien si kom César bàyyil ci kom César toogal bul jug foofu c'est bien acca kaay gauche dellu ginnaaw dellu ginnaaw César bi fa bu ñu defee voilà César pare nga cik si koom César wan ma ginnaaw César si digg bi voilà garde ko voilà là dama koy surveiller maanaam sàcc bi dafa ñëwoon di ma agressé wala mu ñëw di sàcc xaj bi jàpp na ko ma ne ko bàyyi ko mu bàyyi léegi nag fu ñu jëm mooy police taxawal sukkal César garde ko léegi fii tànk ndew moom mu bàyyi ko du ko bàyyi gis nga dafay garde mi ngi bàyyi xel kee ndax c'est un intrus xamu ko mais kii tamit mi ngi koy bàyyi xel talaa jugal César gis nga voilà donc léegi tant que sàcc bi narul daw wala agresseur bi warul daw pour rëcc du ko def dara talaa dawal si koom bàyyil César kay bien voilà lii la ñuy la ñuy liggéeyee xaj ba nga xam ne tey bu jàppoon sàcc du ko gaañ ko aar boo ko téyee booy dox ak moom sàcc bi mun na dox aisément ngeen dox aisément nga suturaal ko ngeen dem ba police. d'accord voilà. kon na gars yi gis ngeen euh, li ngeen di gis ci ci ci ci chaîne tubaab yi li ngeen di gis Europe États-Unis am na Sénégal Sénégal sénégalais nekk nit boo xam ne yàlla da ko may ci wàllum xam-xam lii lii du ay tappale man sama genre su ma joxoon cinquante ans ci kanam jox ma avec tous les moyens du monde mënu ma ko réussir. mais tu gën réussir nako gën euh, liguey bi c'est sûr que yombul ci xaj mais est-ce que yomb na ci yow. waaw yombul si kenn nak parce que yombul César yombul man yombul si euh, sama équipier bi Moutala parce que dafa nek effort bo effort physique la tay bo amul xel def il va falloir ngay xalat di xalat xaj bi lañ ko wara a fay bi muy def ni des fois ngay di comme sang euh, pour mu dem mais ba mu demee am na leneen lu ko désorienté leneen nekk si xelam donc mala la donc il va falloir nga toog jël sa temps am patience bu bëggul bëggul nga bàyyi ko ba beneen jour voilà bu amee envie rek lañ koy liggéeyloo. ban ni numéro téléphone lañ la mën a jotee parce que euh, gars yi soxla nañ ko man fi ma secteur moo dëkkee gars yi ñu commencé di bëgg yar xaj et tout ça mais li ñuy seen seen réel problème mooy dresseur am benn dresseur boo xam ne dañ di comprendre am dresseur boo xamante ni. c'est-à-dire dina dina dina dina disponible aussi. Mhm. waaw loolu moom euh, bëri na fi quoi parce que Sénégal maanaam dañoo amagul culture dressage tamit moo tax pour nga gis dresseur dafay xaw a jafe mais ñun ñoo ngi ciy def lu ñu mën te ñoo ngi ciy dox lu ñu mën tamit donc ku ko bëgg a euh, ku ku woo loolu daal. boo jëlee suñu numéro incha allah boo ñu wooyee nu mu waree lu ñu mën dinañ ko def te tamit lu ñu mënul suñu xam-xam ñu naa la mënuñu ko. voilà numéro est 77 308 40 57 77 308 40 57 ku jotul si numéro boobu bo 70 640 58 67 640 58 67 waaw ku ñu bëgg un jot daal boo ñu numéro. si numéro avez di vous jot ku bëgg a tamit suñu page euh, da ngay def euh, dog G U E N E espace D O G di gis euh, suñu waaw YouTube TikTok Instagram Facebook foo dugg daal di nga gis incha allah. kon kon nag yi mi ngi noonu boo leen duggee si chaîne am abonné leen si yéen ñi nga xam da ngeen di yar ay xaj parce que le fekk que muy présenter ay ay ay xaj di présenter ay exercice ne na leen gën a may amour bi na leen gën a may xam-xam aussi parce que dafa dafa dafay dafay partager tout le temps ku nangu di partager la gën euh, est-ce que tey jii nii euh, euh, tey yenn dresseurs yi benn dañu am benn problème yow di nga dresser xaj bi ba mu ba mu ba mu déggal la. mais après maître bi kiko mom day am problème pour communiquer ak xaj bi. waaw lool non problème bi likoy indi moy lepp lo gis dafa am yoon xam nga moy sànq liñ doon waxtaan rek c'est le milieu qui détermine l'individu nek ki bokay jangal dang koy jangal pour famuy dem mu mengok limu jang mais bo jangé mécanicien ba paré ñu yobul la na la dajal ma lalu bant da ngay sonu donc c'est-à-dire xaj bi boko ko ba paré da ngay wo borom mu ñew nga ne ko ah xaj baangi ni tagat nañ ko légui ni ni lay def nga gis nga xol après nga jël xajj bi nga def lima def bu ko mënul nga jubbanti ko jàngal ko recadrer ko ba paré jox ko ay exercice parce que xajj kenn ko dresser ni rek joxe ko mi ngi mel sa dom bu jangé ba wacc ñu jox ko exercice mu tok wala jangul ay leçon du ko mësa mokal lo jangul do ko tari te exercice fay yox voilà. gën jangé jëf euh ñu am ñu am ñu gisaat fi bi ci allemand est-ce que même dressage bi la ak pitbull waaw même dressage bi la mais ñoom ñëpp ku si nekk am na lu si ëpp loo ëppalee sa morom parce que pitbull dafa nekk benn benn xaj boo xam ne trois forces la am à tirer à sauter et à combattre à tirer mooy mën na xëcc plus de une tonne si kaw ñu entraîné ko si lool à sauter mën na tëb plus de quatre mètres si kaw mu koy liggéey. et à combattre mooy il ne renonce jamais soxorul si euh, kanamu doomu aadama yi mais maanaam beneen xeetu mala maanaam du ko du ko du ko défier quoi moom bëggul ku ko défier beneen xeetu mala moom dafa bëgg fu mu nekk rek maanaam boo ko mayee jàmm mu may la jàmm boo ko mayul jàmm moom dalay wan dooleem. pitbull noonu la mel donc loolu pour nga euh, canaliser ko foog xaj bi di def effort physique équilibré wu. parce que bu équilibré woo rek day am jàmm donc na len may légui ben démonstration ci berger allemand yi ngeen xol len voilà ben bu bu jigéen bi mom mi ngi am 2 ans et quelques ki ci dess moy dayki domam la mi ngi soga am 1 an actuellement ni 1 an 10 jours lay soga am ni actuellement donc euh, dinañu liggéey ci ñom moy ké defal nañ ko obéissance totale mais dafa nekkul comme sank luñ doon wax chien de garde chien de garde bo xam euh war na li ñu koy soxlaa dina ko def mënu ko nekk parce que amul capacité boobu donc il va falwaar euh, ñu toog xaar ba mu def reproduction ñu tànn un chien de garde te dinañ la wan tamit déclenchement wu kii boo xam ni xaj bi mu xamagul dara ni ñu koy déclenché quoi. kon kon yow boo xoolee xaj bi rek da ngay xam ne xaj bi day muus wala du muus wala xaj bi chien de compagnie rek la mën ci kër gi wala xaj bi day tiitalaate rek. waaw loolu dafa am loolu dafa am mi ngi mel ni benn benn kër ñëpp mën nañu bokk ndey ak baay mais est-ce que ñëpp ñoo nduroo jikko est-ce que ñëpp ñoo nduro est-ce que ñëpp a lool da fay am donc kër gi day am ku ci gëna am ku ci gëna dof am ko xamni mo ci gëna am xadar am ko xamni mom la ñëpp gëna respecté donc boy boy tan ci ñooñu kilifa gi kan nga ci tan ki ñëpp gëna respecté donc bo ci tan gaynde gi ko xamni manam bu dara ne hop mom mu taxaw donc ki am xadar ngay tan